dafa bare te xeex bi dafa metti ki koy suuxal moo ko sooke ni bés écoute sur les réseaux yi mbokk mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp ni ñu ko baaxoo rek gërëm ñi àndoon ak ñun ci faja rek léegi Hadj Ndiaga Seck Hadj Mor waaye it Hadj Babacar Fall ak RFM matin 7 gi ak euh, Georges euh, Déthié Diop Barthélemy ngeen baal ma Georges da nga woon ci yéenekaay yi soxna Fama ak 8h a jërë ngeen jëf ci ci kóolute googeeg RFM euh, kóllëre gi na ko noonu di leen dalal jàmm ci pencoo gi tey nag mbokk yi xam ngeen ni dañuy waaj a wuyu ci appel bi bu sell bi ku tedd gi suñu maam euh, maam Limaamul Mahdi Laay moo waral tey ñu prier ku mel nii ni euh, suma xarit euh, suma wëllëre Ibrahima Jong Gazu incha allah ci ngoon it euh, dinañu wuy euh, waxtaan yi lu ni mel ba tey jii rek ngir appel bu am solo boobee at mu ne RFM groupe Futur Média ci boppam ak ni mu ciy taxawale fàttali ne groupe bi ci boppam direction général bi sax euh, bu midee fas nanoo yéene ziyaari xalifa bu tedd bi sëriñ du Mactar ci ca Cambérène ni ñu ko baaxee saa su ne bu ñu dëgtalee bu ñu dëgmalee ndaje yu ni amee solo ngir rek ziyaari ko ku tedd kii waaye it li nga xamante ni mooy tàllal yoxo yi ngiri ñaan ngir Sénégal ngir groupe Futur Futurs Ibrahima maa ngi lay ziar bu baax di rafetlu sa ànd ak ñun ci RFM. Alaaji Assane bisimilahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mbokki RFM yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu Sénégal gi yëpp xabla kulli cheyin Alaaji Assane di ziar xalifatal muslimin sunu bàyyi dund du Makhtar ibnu Seyna Mañor saahibul kiram mm-hmm. di nuyu njabootam gépp di la ziar yow Alaaji Assane sama soppe sama xarit du nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi liggéey ci Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima Diong ñu fàttali ni animateur principal bu appel bi du ñàkk sax euh, balaa may tàggoog yow. Euh, dinaa la ñaan nga yëkkati euh, ku lay aw nag moom a jaaxal ndax moom moom baat bi mag Ablaye yam mais nga waxal ñu ci ku tedd ki maam Limaamu Mahdi yu xam naa xajul ci émission waaye lu ñu ci mën a wax rawatina mbokk yi. Alaaji Assane jàppal ni Seydina salaam. mam Alassane Laye moom mooy moo jur mooy mooy baayam soxna Kumba Ndoye moom mooy yaayam Seydina Limam alayhi salaam mi ngi woote fii ci réewum Sénégal ci Afrique ci àdduna wërgal këpp 1883. Mhm. la bay lay yëkkati ajibu daa yàlla yi ni wuy leen bi yàlla bi. Mhm. xam nga yàlla ci boppam moo ci alxuraan bismillahi rahmaani rahim. wa li kulli ummatin rasul. xeet bu ne dina am ab bàyyi hmm. lay nag bi mu ñëwee dafa ni yéen xeet bu ñuul yàlla moo ma yónni ci yéen ndax yàlla moom moo ni wa ma arsalna min rusuli illa bi xaw xawmi yàlla bu dee yónni ab yonent da koy yónni ca melokaanu xeet ba hmm. wala xam nga yàlla du yónni jël chinois di ko yónni ci ay olof hmm. donc bàyyi lay bi mu ñëwee lébu la kàllaama lébu la wax kallay leen kaay leen ci amrul aadam loolu la bàyyi la wax yàlla nag moo ko yónni muy loo xam ne lu wér la ci der bu ñuul daal di nekk fii ci sow nga xamante ni tey jii fa ñu ko denc ak diggante moom ak géej sorewul hmm. nga xam ni kon lu dul dëgg du yàgg woote bi nag am na téeméeri at ak ñeent fukki at ak ñaar eh maanaam ñetti at yi defaru ko ndax mbiru Covid bi. Mhm. waaye bàyyi lay daal jàppal ni. Mhm. yàlla moo ko yónni ci lu dëgg muy lu wóor ndox lu dul dëgg du yàgg. Mhm. te lii nag woote baa ngi dem nag àlla jasan. day gën a yokku. day ñu gën a bari. macha allah te wax dëgg yàlla macha allah asana xaalixin. jërëjëf junjal ñu aslëf nag ci ci ci liggéeyam ci njàngaleem rawatina. bàyyi laay ay enseignement am su ma toogee fii di ko wax du fi jógee. jàppal ni bàyyi laay ci njàngaleem mbiru kas daka dàq. Mhm. maanaam amul kéwél mhm. amul géer amul ñeeño amul dara dafa ni ñeen ñëpp na ngeen sant laahi moo tax Seydina Limaamu Laay alayhi salaam dafa ni man bàyyi naa sama sant caw sant laahi ndax jaamam yàlla mhm. lanu lanu moo tax amul ndaxte xeet si bu ma la nee caam wala euh, nangam maanaam bu la waxee benn sant mën nga xeet ci sant boobu te bàyyi laay loolu lay dàq yooyu yëpp moo tax mu ne ñun ñëpp nam sant laay ndax la dugalee ci biir bàmmeel bu la nee yaa bi yàlla bi àjjana nga jëm bu wallaay noonu ab yàlla bi beneen côté ba nga jëm mhm. dama ko bañ tudd mhm. moo tax bàyyi laay dàq yooyu yëpp ñu ñëpp nan sant laahi bañ a xeebante bañ a xeebante xeebante bañ a am suñu biir moo da mu dàq wàllu kasra boobu mhm. njàngale boo ko def beneen bi si njàngale bi lu gën a rëy mooy bàyyi laay dafa fonkoon julli bëgg julli ba nga xam ne boo dee julli li yàlla wax ci alxuraan balaa nga julli na nga tudde yàlla bokk na ci enseignant ñu tudde laa ilaaha illallaah ba pare doog julli bokk na ci laneen fekkee liir la muy góor dinañ ka xarafal maanaam dugal kër ne góor fekkee jigéen la dinañ ko may borom kër balaa bis ba dellu si. Mhm. yooyu yëpp dafa bokk si njàngale bàyyi lay. am na solo euh, mu mel ni ci wàllu bennoo gi ak euh, mbokkoo gi bu ñu amoon ak taalibe euh, aslëf réeroo yenn yi duñ ko dund ndax wax nga ci wàllu boddi konte ci xeet ak it wàllu waasoog yu ni mel dugg ci kër soxla fa soxna ñu ñu lànkal ko yu ni mel te moo ne sax ñu may ko ku ca France xamooy mbokkam ñu ñu des ak bennoo ak lii boole askan bokk na ci li mu gën a marqué. kayuk ki nga xamante ni mooy xalifa bu tedd euh, ba fi woon El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye ci wàllu tarixa yi ndax jamono ju euh, ku ne taxañ jëmee sa sa wet ci ñenn taalibe yi nga xam ne ñoom xamuñ lu bari ndax euh, sunu kilifa yi diggaluñu ko tey diggaluñu ko ëllëg mais léeg ci wàllu xër gi wala taxawaay nit ki xëy na umpale leen li moom gis nga boole gaak doom ya mu tuddee ku ne ci ci ci njabootu tarixa Sénégal fu ne mu am fu turandoo xam nga loolu taxawaay gënu ko rafet wallaay Alaaji Asan bul ma jooyloo. Mm. Alaaji Asan yaa ngi tudd koo xamante ni ñu ngi koy jooy ba léegi noppeegunu mm-hmm. Baye Abdoulaye Sow laay moom maamam dëkk tuddoon. lu jiitu muy gane àdduna. Mm-hmm. muy Abdoulaye Massa Abdoulaye bu ñëwee sama yoon wi siiw. lii ñuy waajal tey jii muy Abdou Seydina Limam muy téeméer ak ñeent fukk ñaar ci at si ren. Baye laay dëkk tuddoon. sëñ Abdoulaye mille mille neuf cent quatre-vingt-un la taxawee appel Baye Seydi Thiaw ñetteelu xalifu Seydina Limaamu moo ko indi. Mhm. sëñ dafa nekk koo xam ne symbole la ci diina di wax nga ka mhm. diina boo dem tarixa boo dem sëñ Abdoulaye am na fa ab chaise. du déggoo waykat ba ni ko yow yaa jokk mbokk gi. yaa fekk mer ma diine meroon mm. tey yaay doomi Seydi Issa yaar bi kenn amul sa fay mm-hmm. tey ji sëñ Ablaye këram boo demee di nga fa fekk Cheikh Mbacke mm-hmm. di nga fekk Mame Diarra di nga fekk Cheikh Tidiane di nga fekk Mansour di nga fekk Abdou Qadir Jeylani mm. ak yeneen ak yeneen nga xam ne si waxtasimu bi hamdillahi jamian wala tafarraqu mooy ngoy leen si buumam yàlla gutu bu leen taqli ko moom enseignement boobu da koy jàng pare xam ko jëfe ko moom Baye Blay mm-hmm. moo tey jii nag bi mu génnee àdduna mm. nekk na koo xam ne tey ñu ngi ko denc ca wetu baayam Seydina Seydina Issa wallahi mm-hmm. yeneen tam yàlla bi mm-hmm. ñu ngi ko denc foofu woon dëgg yàlla mm-hmm. baay bi laay sagal na l'islam sagal na déyee pape bi bi mu ñëwee fa tëjee pour moom ndax temps bi bi bi mu jógee fële Jean Paul bi mu ñëwee Sénégal bi ñëpp ba taxawee doomu soxna yi sëñ Ablaye rek la ci jox loxo dañ koy nuyu moom rek la ci jox loxo te dafa doon nag loolu affaire la. Mhm. mënuma ko sarafi. dëgg kon nga xam ne sëñ Ablaye beneen dimension la. macha allah tey jii ñëpp a ko gërëm ñëpp a ko sant ñëpp a ko ñaanal yàlla nu yàlla tas si barke. amiin amiin ñu ñaan suñu borom fay ko taxawaay gi ak mbooleem xalifa généraux yëpp mbooleem euh, xalifa yu njabootu maam Limaamu Mahdi Laay ñu jeexale nag euh, ki ci jal bi euh, di ko ziyaaru baax sëñ Muudu Maktaax Laay di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér moom it xam naa nga junjal ñu ci rek ci ci toogaay bi laata ñuy yëkkati jotaay gi Alaaji Asan kooku defe naa dama ko dama ko fental benn way maa ngi ziar baax au passage maam Sambalaay bi nekk ci yëmbal mhm. nose naa ay bind ci moom nee na ko at mi door na nan yee salaat sunu ngëm te dellu royaat mhm. al sargalaat sëtëm bi ñëwaat al xalifa ibn Omar mooy mhm. Baye Doudou Makhtar un homme discret koo xamante ni moom ci boppam bëriwul wax jaamukatu yàlla la du dugg ci lu yoonam nekkul. Mm-hmm. xalifa gi taala gi nekk ci bopp bi lay gëm naa ne bugg ci dara bu sañoon sëñ Abdoulaye dund ba doyal. Mm-hmm. ndax moom dafa nekk koo xamante ne c'est intellectuel nag. c'est cadre. Mm-hmm. c'était cadre à la Sonatel. waaw waaw nekk ko am solo. il a il a fait ses études en France. bi mu ñëwee fii bàyyi lépp daal di ñëw toog nekk ci ay wetu magam jàppale leen ci liggéey bi yàlla yéen kay mu nekk nag koo xamante ni yaa fa nekk ko effacé wu. buggul dara ci dara lay dara. te nag wax dëgg yàlla président Macky Sall ñu ngi koy sargalaat di po di provisoire occasion bi. Mm-hmm. ndax démb ñëw na fa ziar si ko. Mm-hmm. daal di waxtaan ak njaboot gi. Mm-hmm. ñoom ñaar diisoo nañ ay diisoo yu am solo te lan la wax Macky Sall nee na li ma ñor mooy. na nga téye Sénégal. Mhm. jàppale Sénégal ci yoon mi nga xam ni moom nga nekk ni bu la ci kenn jëlee. Mhm. na nga na nga maandu ci la def ni lay jàppale nanu maandu ñëpp ci liggéey bi te nga jàppale këri diine yi. Mhm. te nga jàppale ñëpp mu ka amul ka njëkk seen muy catholique muy jullit ku mu mënti doon ko loo ko mën a dimbali na ko jàppale. kii mooy Mamadou Makhtar. macha allah la yonte Aliou. jërëjëf eh, Ibrahima eh, macha allah yal na yàlla oyofal yan bi lool di fàttali ni direction générale bu groupe Futur Média ci eh, le personnel daañu ci kanam ci bëccëg gi 12h euh, lay doon ca Cambérène euh, di fàttali ni seen émission yoon wi incha allah 15h30 am nañu yéene ànd ca coordonnateur bu comité scientifique bu appel maam limaamu Mahdi Ilaay imaam Jibril Gaye Ibrahima ni ma ko waxee woon aca ñu yëkkandi laata ma lay ba. ah <laughs> yaa may aw de. <laughs> déet déet baal baal Ablaye tëj sama micro rek damay bañ gaa daw. kon jeex na. <laughs> إني إني رسول الله إليكم باي لاي نكلي لين جا أمر العظم باي لاي نكاي لين يولين دكلين جا أمر العظم allahumma salli jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ibrahima jong Gazou la woon ak ñun mbokk yi principal animateur appel bu maam di maam Mahdi laay ñu koy gërëm bu baax ci loolee ñu leen euh, junjal rek euh, li ci des ñëwagul incha allah euh, ëllëg la appel bi ginnaaw ëllëg naka noonu desk religieux bu Futur Média RFM ni ñu ko baaxoo ci njiital oustaz Mor Thiam incha allah ak équipe bam Hadj Ndiaga Seck sëñ Moustapha ñoom ñëpp la rédaction de la RFM ci journal de l' appel ku lim jum technique bi ci njiital Ablaye Euh, dinañu fa teew ni ñu ko baaxu at mu ne dem tàllal loxo yi rek euh, di ñaan suñu boroom lépp lu nu fa jaamu euh, ci barke maam yi mu nangul ko moom subhaanahu wa taala Sénégal nangul ko njaboot yi rawatina wàllu jàmm jàmm ba nuppi sog a yóotu leneen ci kanam tuuti ñu daal di leen ubbil antenne bi laata ñuy yëkkati mbokk yi jotaay geeg pencoog RFM. ala muhammadin sayyidul Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi jërëjëf Ablaye Diop jërëjëf euh, ñu daal di ziarante laata ñuy tàgg xalikoo mbokk yi penco geeg RFM 88 628 14 14 asalaamualeykum. aleykum salaam. sëñ bi waaw. na nga maa ngi sant yàlla bu wér. Pape bu Yoof. waaw ñu ngi lay ziar di ziar waay Yoof yëpp. yaa ngi ci jàmm. ça va waaye dañ may laaj ba xam yow kër Ndiakhate ngay daal wala kër Selmax nan lay daal. ah. maa dañ lay laaj ba xam yow ñun wutal nañ la néeg de ndax si njaacaare nga dawal si serment non xam nga ci yéen lay dal de xam nga ni du ma dal ci ñoom ñoom ñoom ñoo ñemee bañ tudd ñu mën ceeb ñi ci yéen ñooñu lay dal ci incha allah ah, ñun ñun daa wutal nañ la nekk spécial <laughs> incha allah Pape <laughs> mbaa yaa ngi ci jàmm baax alhamdulilah ah ñu ngi lay ndokkeel baax waaye jërëjëf jërëjëf ah di ndokkeel nag suñu bés bi ñun tim di bi mm, mm. def Seydina Limaamu Laay mm-hmm. ah ni ko kilifa yi santaane rek mm-hmm. nan ko doxale noonu dëgg la ndax nit ki tim la ngay seet la sa kilifa bëgg. oui. xanaa ko noonu. nga am kilifa daal. waaw ñuy ah, waa ñu ko defee Cambérène ba Yoff. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu génn néegi jox ko gan yi. ndax ku ku ku ne ku ne géej randal ma dëkk. Mm. ku ko ku yaatal na. dëgg la. kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñu fekk ko. amiin yaa rabbi. te liñ ci ñaan ci senegal lépp yàlla nangu ko. amiin amiin amiin ko ah, su ko defee daal ñu gërëm ñëpp su ko defee El waaw. xam nga Sel mm-hmm. am na mandarga muy muy yor aw yatam. mais am na foo xam ne yëpp àggu fa. dëgg la. croisement vingt deux. Mm-hmm. dañ faa gas kàmb goo xam ne. waaw wóorul. Mm-hmm. te seen naxa itam dañuy dox seen i waaw waaw xam nga nag ñu ko fa gas. Mm-hmm. moo xam ku ma ko mën a gas daal. nga nga dimbali si seen maxa yi. am na solo. ndax yat moom àggu si kàmb. dëgg la dëgg la. Mm, te wóorul. ku ne xam na ne ordonnance seer na. dëgg la ndax jamono yële passé. am na kàmm yu ñu gasoon si biir Dakar am na suñ benn jigéen ba fa dugg. dëgg la ba jénn àddina. man mm-hmm. ñu ngi ñaan képp koo xam ne daal croisement Vendôme ko fa ko mën a gas. moo xam état la wala ñuy liggéey ci courant wala ñuy liggéey ci ndox. Mm. nañu fut ab baaraas. dëgg la am na solo wax wax ji it am na ci solo ngir moytu ku ko mën a tegg it. xam nga waaw. xam nga dakaar bari bari na ay mm-hmm. chantier. waaw waaw baax na nga wax ko pour liggéey ñuy liggéey sóoraale ci ay ay waaw lu ñu mën a gàttandoo loole waaye di ko teggi ka moytu it baax na ci ah. te moytu ki dem baax na si. dëgg la waaye koo xam ne ne moom gisul. Mhm. yor naw yatam di dem. non non le fait bi jib ci rajo yi baax na laa wax pour ñu yëgle ko rek. waaw kay. Mhm. ñu ngi naan la ku ko mën a gas daal. ba bañuñu bañuñu ku gas. waaw mais ku gas di nga wut loo xam ne ni bu ko nit làmbee. dëgg la xam ne seen maxa la dana xam ne lii am na. lañ lañ ko def dëgg la ñu gunge ko lenn li waaw am na solo. ñu leen di bàyyi xel bu baax waaw jërëjëf jërëjëf Pape jërëjëf jërëjëf même euh, échangeurs yi également ñu fàttali ne ñoom dañuy soxla léeg-léeg rampe yooyu nga xam ni euh, ma leen di may ñu ci jàllale pousse pousse yeeg yooyu saa su ne ñu koy ñaan sunu euh, agence yi yore wàllu tabaxi yoon ak i pont Euh, ci ci Sénégal ñu ci gën a baxel euh, ndax fi jamono toll Sénégal tardé na ci lool ci fànn woowee ñeel handicapé yi ci wàllug euh, mais ñu ngi dabu ñu ngi dabu gis nañ le TER également lanu ci sóoraale ca loolu lu am solo la et c'est ce qui est normal ñu gën ci baxel kon pont yeeg lu mu mën a doon hôtel yi bërëb yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ koy soxla ne ñun ñu ciy def ay rampe pour yombal dem ak dikk bi ci ñoom jërëjëf Pape ko 88 628 14 14 asalaamaaleykum. aleykum salaam wa bisimilah Omar. El Hadj Assane Gueye maa ngi lay nuyu di la ziare. jërëjëf. xam nga ren l'appel bi vraiment fi nga ñëwee tey dafa am solo trop. Mm-hmm. te encore maa ngi fàttaliku sama mbokku laayeen yi. Mm-hmm. le pont de Cambérène tey dinañ ubbi à trois heures. Mm-hmm. selon information yi ma am si au niveau ministère des infrastructures et du désenclavement monsieur Mansour Faye Mayacine Camara. xam nga loolu vraiment chantier boo xam ne depuis at yi at gars yi ñu ngi ko doon jooy. vraiment bu demee ba état ak sama mbokku laay ni nanguy def foofu noonu la mel ni pompe mucc ay boobu noonu. Mhm. loolu c'est à saluer Aladji Assane Gueye. am na solo dëgg la. vraiment li ñu wax noonu foofu noonu mhm. léegi si 22 actuellement nii BRT bi moo waral actuellement lépp gàll gàll bu fa am actuellement liggéey BRT la ñu nekk. Aladji mhm. Assane nag ku bëgg a omelette il faut nga toj ay nen. il faut dëkk bi ñu gas ko defar ko puis c'est son excellence dafa xam ne carrément eh, transport puis eh, si Dakar dafa am solo trop. Mhm. loolu moo tax actuellement vraiment partout à Dakar da ngay gis laa la wax gars yi di di kii mhm. am na benn échangeur bu ñu def fale temps yi mooy fale yob tongoor mbooloo mhm. tamit sta salie puisque foofu tamit nu mu meloon ak population bi vraiment métti woon na trop vraiment état bi daal vraiment ñu ngi leen ñaan baal baal ma ñuy gàttal dégg nga voilà jërëjëf baal bëgguma di dagg nit ñi ci antenne moo tax waaw ñëpp daal di ziar ñëpp li mu wax am na solo ci décongestionné dem ak dikk bi surtout ci VDN bi ak Cambérène loolu tamit lu ñëw dolliku la ci gaawaay ca euh, la wutali ci jamono yi di ñëw ba ba diwaanu ndar yooyu yëpp ay ngëneel la ñu ciy gërëm bu baax état Sénégal. 88 628 14 14 asalaamaaleykum. allo. waaw cheikh bi. Alaaji Assane. waaw. ñu ngi lay ziar waay. ñu ngi delloo ziar bu baax. ngir as ndongo la ngi Ndakaaru. ah euh, bisimilah. Euh, am loo xam ne day suñ sang bu tedd bi daf ko waxoon. Mm-hmm. mu ne boo ragalee yàlla ba noppi. Mm-hmm. kan nga ci war a teg mm-hmm. ku ragal yàlla mm-hmm. ku ragal yàlla lu nekk ñeme na ko mm-hmm. ku yàlla lu nekk ñeme na ko nan fexe bu ñu lakk réew mi nañ ñu dimbale ngir yàlla ñun ñuy bay di lekk nañ bàyyi réew mi ñuy indi coow ci seen intérêt bopp kese ay waaye nañ ñu dimbale ngir yàlla dëgg la dëgg la loolu laa man lu mooy joxe mu def sëriñ muy ku mën a doon ku ànd ak kuy taal réew mi réew mi waruñu koo nangu dëgg la dañ bay waxu politique yi jàppal diw defal nii defal nii rek réew mi bëgg a tàkk mhm. kenn mën a liggéey nañ mu ngir yàlla bay politique am na solo jërëjëf la war a yàlla jërëjëf jërëjëf ñaan mhm. merci beaucoup merci vraiment li mu xam na solo euh, asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam alay ziar na nga def ñu ngi sant yàlla wér ñu amin allo. mën a ji bi mën a ji Ndar Gueye. waaw vas-y. ah ah, ah salaama Gueye Gueye Gueye dama yaakaar ne sa kii bi sa xarit bi laay waxal. <laughs> jërëjëf maa ngi lay ziar Gueye. jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla yokk jàmm yokk sutura. amiin waaw lépp lu ñu woote rek lépp lu ñu fa ñaan yal na ko yàlla nangu. amiin yaa boo jógee si laa yéen yi rek xam naa après dangay jàll si Medina Gonaas. incha allah ñun dem. incha allah waaw ba benn information la joxe fii ci Ndar. waaw juróom fukki daal ak deux cent yi Gueye Ndiora. waaw boutique boo ko dugal kenn man la juróom fukk ak deux cent yi fu ngeen defar man la ñu defaroon ma xaalis bi ngay wax juróom fukk waaw weccatu waaw lan moo ci ne dañu lan moo tax ñu koy lan juróom xam man xam loolu moo ma jaaxal kooko li ñu kooko jox mu ne bëgg boo ko jël jëndee kafe ne bu ñëwee warga ak ne duñ ko laal ah doy na loolu doy na war nañ ci waaw waaw loolu xam naa kilifa yi dégg nañ la dinañ ko gëstu jërëjëf Guèye jërëjëf kontaan naa na yàlla yokk jàmm amiin yàlla merci beaucoup merci vraiment juróom fukk yi ah loolu amoon na jamono ñu waxoon ne deux mille yi <laughs> Sénégal vraiment mais comme ni ñu ko waxee rek na ci kilifa yi taxaw waxtaan ak gars yi gindi ko am xëy na dañuy ragal rek benn sekkeen wut benn pièce boo xam ne ci jamonoy Lat Joor la woon bëgg koo ñëw <laughs> gars dañoo xaw a di léegi réew mi dañoo bëgg koppar ci anam yoo xamante ni di moytu rek ndax nit moom bu ko lu ne bu ko lenn li jaralee lu ne da koy moytu 88 628 14 14 RFM asalaamualeykum. waaleykum salaam El Hadj Assane waaw. Ah, man la Bassirou Faye sa xarit. sëñ Bassirou maa ngi lay ziar waay. bu baax. di ziar waa Fatick yëpp. alhamdulilah. Aminata Goudiaby. <laughs> waaw. sama sëriñ si Ibrahima Soxna. Ah, waaw min min miin naa Fatick de ah. waaw ah, miin nga Fatick. <laughs> yow kay. <laughs> yaa ngi si jàmm bu baax ça mhm. euh, di wax ci wax ci si appel bi rek. Mhm. ñaan yàlla daal euh, yal na yàlla daal lu mu fa ñaan yal na ko yàlla nangu. amiin ñu bokk lépp waay. te ébi nag Sénégal soxla nañ ñaan euh, El Hadj mhm. nag si àdduna bi yëpp sax. dëgg la dëgg la. vraiment nañu jàppale daal ñaanal ñu fii si àdduna mag ñu baax ñi. Mhm, macha allah ñaanal waaw ñaanal Sénégal daal jàmm. dëgg la nekk ci biir. yàlla na ko yàlla def yàlla na ko def jërëjëf jërëjëf. merci sëñ Basirou vraiment ñu koy gërëm bu baax asalaamualeykum. waaleykum salaam. bisimilah. Alhaji Hassan. waaw yaa Oustaz. Guèye tey dama lay yalwaan de. sëñ lii ah. waaw sama maanaam dafa am suñu benn xew-xew bu nekk Fuuta Thierno Mouhamed Lamine bi. moo tax ma bëggoon nga may ma rek ma waxtu tukulóor. déet xam nga lan mooy mbir mi. waaw. Euh, yoonu liggéey bi daf maa mayul may jël koo xam ne moom li muy wax man xawuma dégguma ko xam nga bu fi Seydou nekkoon wala keneen sax <laughs> ca euh, kilifa gu baax gi nga ci tudd kay man moo ma gêné déjà mënuma la ko lànkal mais xam nga man booy wax ci dégguma li ngay wax euh, jeune ne peux vraiment en rien contrôler say wax ah comment. al ma nangul ci ma wax waaye ba bàyyil bàyyil waxi waxi nit ñi ca ñu wax ay xalaat waaye nga baal ma papa baal ma rek baal ma ñu wax ci ay idée ay contribution lu ñuy jëme kanam ñu bàyyi waxante suñu biir jaaraama jaaraama jaaraama ceerno assalamu aleykum onon banndiraaɓe fuutankooɓe hmm. on calminaama onon fof on njuuraama eɗen ngardi ne noon ceerno mouhamadou lamin mbi ceerno fuuta mawɗo fuuta min souleyman li khadimul qouran oɗon mbo khalifatul muslimin mboɗon nodda on noon e on ɗon ziyar mawɗo tedduɗo mo ngannduɗa kanko woni premiére ziyar e inde ittihadu ahli fouta ittihaade ahli fouta noon koyo fuutankooɓe fof ngon gootum peewna diine o peewna sénégal e dow needi e dow ganndal hmm. ko en sénégal moƴƴunoo tuggude e ceerno souleymane baal haa yetti alhaji cheikh oumar haa yetti e sénégal fof hmm. wadde fuutankooɓe kala ko ina feewna sénégal ko ina fota addude jam e sénégal ko ina fota addude needi e sénégal ko ina fota addude ngartam e moƴƴere e sénégal fuutankoɓe fof no foti darade en onon sukaɓe fuutankoɓe onon hol gonɗo ceerno mouhammadou lamɗi hande te kanko woni ceerno fuuta mawɗo fuuta fuutankoɓe woto nande nandikine tuuba woto nande tuubakoɓe woto nande julɓe hakkan sabu sayyidu a mouhammadum sallllahu alayhi kanko woni almami fuuta kanko ardiɗo fuuta e fuuta mhm. wadde kala ɗo yiya no foti yiyeede muɗum e needi kala fuutanke noon ɗo woni hannde aduna e no nodda duumgo wuro alpha oɗo ziyara woni premier ziyare mo ceerno mouhammadou lemin li watta so allah haaji taw noon caggal nde o waɗa mawɗo fuuta ceerno fuuta voilà jërëjëf jërëjëf jërëjëf li jërëjëf ñu koy gërëm di jégalu vraiment c'est c'est c'est c'est regrettable mais euh, voilà lu mënta ñàkk faw mu am nit ñi waxee naa ko nu ne euh, nañuy gàttal waxtaan wi di comprendre nte suñu biir lu ko may on va y aller ñu radicaliser wu rek dagg nit ñi comme ñu loolu lañ bëgg ndax nit da ngay moytul sa bopp lenn laata ñu fekk si ak yow. et c'est valable pour auditeurs yu bari yu woote fii guddal mënoon naa ci tudd ku ci ne ci ñoom mais dafa rafetul ñu ñu ñuy comprendre Ablaye euh, lu ko mooy yow sa loxo bi day xaw a yéex léeg-léeg on passe à autre ndax nag euh, wax dëgg yàlla askanu Sénégal bi seedeel nanu ma ni ay at ngi ñu koy waxtaan ak nit ñi nit nag dangay dangay dégg xam lees waxul voilà euh, asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. yow la. mbaa yaa ngi jàmm man la Moussa de Richard Toll. maa ngi sant yàlla bu wér. ana waa Ndakaaru Ndiaye ñu ngi fi jàmm. Ndakaaru ngi rek di bari xat-xat. <laughs> waa dana baax xarkat yi ci la ci la di génn. ah alhamdulilah. waaye yàlla na yàlla yokkal jàmm rek yokkal ñu xéewal ji amin amin Moussa ñu bokk lépp di di di kontaan liggéey rek bu baax a baax jërëjëf waay may wax encore Sénégal li mu doon wax ñëpp nañ nekk benn rek am na solo suñ nekkee benn daal bu soobee yàlla lépp luñ soxla rek daañu ko am dëgg la dëgg la waaw jërëjëf waay jërëjëf waay déglu ñu leen mais jërëjëf ñu ngi ziar waa Richard Toll yëpp asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam Alaaji Assane Gueye na nga def maa ngi sant yàlla bér waay Ousmane Dem Ousmane na def waay. alhamdulilah macha allah. naka waa Port Gentil. wallaay ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah. ñu ngi sakku ñaan si Sénégal yi yëpp. ak ziar yi ñu fay fay def. ñoom ah. ñu ngi sakku ñaan. loolu rek moo ci am solo. Mm-hmm. senegal am jàmm. dëgg la ah, réew yi tàkk am jàmm. Mhm. loolu rek la ñaan ñaanu leneen lu dul jàmm El Hadj Assane. dëgg la am na solo yàlla yàlla yàlla dafa jàmm ni ngay dóoree émission bi nag neex nañu trop ñun la gën a arrangé. waaw ah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf. wax na dëgg ñoom dañuy woote bitim réew euh, xaar bi di yàgg lool <laughs> xam naa ne Ablaye dee ma jàppale ci plaidoyer bi yow tamit <laughs> yenn saa yi kay damay bëgg nekk technicien rek benn yoon Ablaye ñëw jox leen micro bi asalaamaaleykum. maaleykum ñu ngi lay ziar sëñ bi. allo ñu ngi lay ziar. ayca di rafetlu liggéey bi di ziare sama doomu baay Abdoulaye Diop moom wul sama xarit jërëjëf yow ah. maam Sidi Diop sa xarit. ah maam Sidi maa ngi lay ziar waay. waaw maa ngi lay ziar. alhamdulilah macha allah dëgg la jërëjëf Diop. di ci am kontaan bu baax nag. alhamdulilah. ñun moom suñu wax di leen encouragé di leen ñaanal rek ñun groupe Futurs Médias. jërëjëf jërëjëf. ca kaw ca kanam rek. incha allah. ndax yàlla daal ko El Hadj Assane lu guddal moom ko jur la boo ko ci kër gi. Mm-hmm, dëgg la de. waaye dégg démb gi lu ci tey ma neex mooy xam te ne engrais bi ni kaas te dogal am ñoo xam ne ñu leen ciy tudd. Mm-hmm. daal foofu laay gën a yëg yal na leer ba ñun ñuy xam ne dina dëkk ci ñaay bi di bay. Mm-hmm. engrais bi mën a yomb. incha allah du ma guddal nag kon wa salaam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Diop. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. baal ñu euh, fay rajo bi. alaaj kooku. waaw man de maa ngi woote Tëngéej daal. émission bi est-ce que mënuñu ko enregistré bu ko defee après ñu teg ko bu ko defee yéen ngeen xool yi nga xam ne. Mhm. warul mun a yéen xalaat yéen. Mhm. mun naa nekk. xam nga xam nga euh, ci premier jour ba dañ noonu dañ koy arrêté sax daa di jël experts yi borom xam-xam yi teg sujet après ku nekk jariñu ñu yëkkati basang yi ba beneen am ñu ma woo ne ñoom bu ñu sañoon ñu bokk ci ndax it rajo bi ci la ñoom Euh, li fi des rek mooy waxtaan euh, naxtaan nit ñi balaa ñu egg ci décision finale bi nag mooy bakko faf <laughs> waaw parce que am na loo xam bu naree yàqu tam jariñatul kenn euh, temps bi dafa dafa cher ndax ñu ngi bàyyi publicité yi ñu ngi bàyyi annonce yi kon bu ñu renoncé loolu baaxee askan yi pour ñu wax luy defar réew mi ñu wecci compte contribuer bu fekkee nit ñi dañ ko bëgg def beneen tribune on on coupe tout mu jeex mais mënoo ko enregistré parce que c' est toujours les mêmes personnes c' est toujours les mêmes objectifs am na ñoo xam dafa am leen tax a jóg loolu laa bëggoon a arrêté keroog ñaan nañ ñu nag ñu may leen du ma sax tudd ka ma ko ñaan waaye je pense que bu ñu ko newul di ko di ko jariñoo waxtu wi ndax lépp pour njariñul nit ñi la wecc konte euh, xel du doy xel nag bu doyulee dañuy ba xel yëpp exprimer wu euh, lu ko moy on sera obligé d' arrêter bu ñu paree ci experts yi on passe la publicité au reste du programme je suis vraiment désolé Cheikh bi hmm? ba boobu rek mais enregistrement yi du du mun a ne du mun a ne waaw <laughs> ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax di ci di ci réccu ñi nga xam ni bon sofoo nañu émission bi mais pexe beneen amul. voilà euh, mais dinañ leen bàyyil pàcc bi nga xam ni mooy ni ñu koy waxee rek ñu am réew dañuy fexe ba ñi ñi xam di wax ci secteur bu mu mën a doon bu ñu paree nag leneen li moom mooy commentaires yi qui sont très libres mun nañ ko defee ci taatu garab yi ci ëtt yi ci néeg yi mais ñi xam bu ñuy wax mooy gën léeg-léeg am na ñuy wax yoo xamante ni waaw nga wax ba géex kenn du xam lay wax du jariñ kenn donc si on a la possibilité xajal ñi xam di wax selon les sujets posés loolu moo moo gënati ensuite la démocratie ñëw nag ñu daal di yaatal lépp ci ñëpp.

Ah, surtout ñoom ñuy dalal ndakaaru ñun ñi nga xamante ni Ablaye dañoo ñëw rek gane si ndakaaru <laughs> on a intérêt euh, ñu yaatal ñu lool nag ndakaaru ñëpp faf ko bokk euh, donte dañuy dem ba bool bool yi foog ni ñoo ko moom waaye maag ñoom ñooy bokk saxaar gi suñuy dellu moo ñëwee ba cees bàyyi gars yi ñu wutali yoonu xombol bi 88 628 14 14 di fàttali ni seen émission yoon wi tey la alxamis incha allah 15 heures 30 dinañ ci ànd ak imam Djibril Gaye coordonnateur comité scientifique appel bu maam Limaamul Mahdi yu laay Ablaye Diop nee na nan ci yëkkati basang gi teg publicité yi euh, gërëm annonceurs yi ci confiance beeg euh, GFM ñu yendu ak jàmm. واسمعوا نطقي بمدح محمد